li waral grève bi nak moy dañoo liggéey ñu amel ñu ay arrière war ñoo fay fay ñu suñu arrière yi ñi dem di len laaj pour ñu fay ñu arrière yi ñi ne ñom amuñu luñ ñi fayé buñu bëggé bëggee liggéey ñi liggéey suñu bëggul liggéey la porte est ouverte mën nañu dem ñun nak ay jigéen lañu dañoo néew doolé amuñu doolé dañuy liggéey pour suñu njabot yi dañoo sonn depuis le 25 juillet ba tey ñu ngi fi di liggéey pour suñu njabot yi 2018 le 25 juillet 2018 la fi dougou commence fi liguer. 5 heures du matin 5 heures du matin nous amuñu bus, du dara du personnel nous sommes ici, du paas bu Nous Nous ñun nous xuloowuñu Nous Nous ñu nous nous ñu fay ñu suñu xaaliss ñun ay jigen lañu dañoo neew doole ñu fay ñu suñu xaaliss parce que dañoo